bile. la xew ca ndar day métti de lool Saint-Louis enquête yéen a kaay ne ma ne la juróomi gaal day waaw ñoo suux allahu akbar ma ne ndar day la nga xam ne moom moo fa xew ne la métti lool lool parce que na guddi àllarba la jàpp alxamis su démb ga de ñetti ci ay doomu aadama day ñàkk nañ seenu bakkan inna lillahi wa inna ilayhi rajiun maa ci tolloo juróom benn yoo xam ne day dañ ña nga xam ne ñoo ci am ay gaañu gaañu day waaw yóbbu bu Saint-Louis gëlé ne ca ay nu néew allahu akbar allahu akbar mere nañu gouvernement bi de ma ko ma jeey waaw ne ay ati ata gi ni la ñuy yëglu di wax te jafe-jafe nga xam ne nag maanaam moom la ñuy dund kon fii ci bël bi bël bi ci ndar nga xam ne nag deewukaay la de ngir suñu njaboot yi lée muluwaar la léegi ba sobi ne ñetti ci ay nappka day réer nañu juróom-ñaar am ci kon ay gaañu-gaañu 24 heures yéene na de rayete faal ci enquête yéene kaay ne xam nga problème mu ndar yëpp a dem tribune yéene kaay ne dama la opposition ba day mobilisé nañ démb de ba noppi nag yëkkati nañ seenu kàddu laa la wax direct info ne dée nit ña ka bëri wuñu nag l'observateur ne ah dëgg-dëgg wuñ moom Dakar Times ne ah kay marche opposition ba waaw a Dakar Times ne déggoo leen ma de dama ne lu ëpp kon benn million ci ay doomu aadama di ay sénégalais dikk nañ nag wuy socialiste kon woote opposition boobee di sakku day ngir ñu daal di fal koo xam ni kon day tëddee njaaxaanaay ca ministère intérieur gële Aly Ngouille Ndiaye dafa jóge ngir organiser kon élection ya waaye tamit ñu audité na fichier électoral bi lée daal di koy jébal tamit candidat yi te Karim Wade Khalifa Sall day dañoo war a bokk ci élection yi la la wax la justice Ismaïla Madior Fall waaw ëllëgu Karim Wade ak Khalifa Sall kay Madior takk ko tegee ko ne moom Ismaïla Madior Fall ci su quotidien waaw ne gis nga dossier Sall waa CEDEAO mënuñoo niilal ab ate woo xam ab dogal woo xam ne day suñu tribunal yi atte nañ ko ba noppi loolu tam mu leer Karim Wade moom bu ñibbisee ci biir réew mi la dana fay liñ ko daan di téeméer ak fanweer ak juróom-ñett ci ay milliards su ko defulee kaso ba par corps waaw ne xanaa ci suñuy néew ngeen di jaar waaye Sénégal jaral nañu ko laa wax te na jamonoy taxaw face à face jàkkaarloog yéen dafa jot loolay dëgg parce que élection yii kenn du ko organiser te Karim Wade Khalifa Sall duñ ci bokk ah, waaw waaw Déthié Fall ne Macky Sall ci boppam léegi moo déggatul amatul ay nopp déggoo leen ma de Macky Sall deuxième mandat moo tourné bopp bi laa la wax 24 heures yéene kaay ne en tout cas marche opposition bi démb bu PDS gaay di waaj nguur gi waaw walaay du fi nekk mukk ci këru àdduna Alioune Diop PDS waaw nee na pare nañu de walaay bu yeboo sax ñu ñàkk suñu bakkan kon ci xeex bi laa wax déet waay monsieur le ministre damaa la wax li lay am satu sow sidi bi waaw ne dam nañ tàyyi nañu sonn nañu laa wax ministre Mambay yi waaw li ah ah wax li opposition bi daal léegi li leen dese mooy dem ci rajo yeeg télé di xaste di saaga di yàq der rek bi daal li parce que ñu bëree bëri ci opposition boobu eh, li parrainage bi laaj yëpp dama ne mënuñu ko journaliste bi ko patron de Dakar APR Mame Mbaye Niang ne ko patron APR laa parce que man kenn recruté wu ma ku moom wax ji dama ne doomu adama ak juróom yi nga xam ne ko ñoo taxaw sos APR dama cee bokk kon man Mame Mbaye Niang patron APR laa waxtaane en tout cas opposition day waaw seen mars ba day jaxal nañ mbir ma démb jaxal nañ tamit assemblée nationale Mamadou Diop Decroix waaw ne ko Ismaïla Madior Fall yow géré woo si si réew mi laa la ngay géré yow ngay politicien Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly xamal ministre de la justice ne man li ma mooy ñi nga xam ne dañuy tux yamba tey ñu leen di tëj fukki atu yàlla ci kaso bi teew ci assemblée am na fi ay député yoo xam ne dañuy tux ci assemblée ay eh waay ndar ràññ way lii Marie Sow Ndiaye ne ko ministre de la justice day maajoor walaay say étudiant xàmmeetuñ la de walaay xàmmeetuñ professeur ba ñu bëggoon sopp ko lool Mamadou Diop Decroix ne ko man day dama laa naw la la waaye bilaay maa mujj am gàcce yow maajoor moom maajoor moom mais eh, Ismaïl ci bag soppili waaw nee nekkul ne ay politicien benn benn yooyee ah ñooy yàq suñu justice bi laa la wax exclusive yéene kaay ne waaye Youssou Ndour du daa bàyyi Macky Sall mardi Italie ah amul parrainage amul élection présidentielle yooyu yee Youssou Ndour ak waa këram day organiser wuñ congrès d'investiture Bougane Gueye Dany ci Dakar Times eh, Macky Sall day waaw daa wor ndaw nekk ci biir réew mi ndaw PDS ba dem na direct info Victor Sadio Diouf waaw jugee na PDS de mardi itali lan moo waral lii moom mi jiite woon kon élèves ak étudiants libéraux yi yéeni kaa gi ne en Ba day ministre des Sports moo ko doon dox ba invité ko kon ca coupe du wax waa ana 4 Bougane Gueye Dany day waaw la mu diggoon njabootug Fallou Sène gi lée def na ko jébal na bàyyi xale bi dem ba enveloppe day bourse entière parce ci fàttali day Fallou gendarme yee ko rayoon nag maanaam ca la ca université Gaston Berger kon ca Ndar libéral ne kaay am sàcc gu doy waar moo am ca ministère santé ëpp law la ilaha illallah waaye Ousmane lée ñaari milliards ak juróom-ñetti téeméer ci ay millions fonds waaw waaye comptable ba Ousmane militant Benno Bokk Yaakaar yee ko moom ñoo ko séddale ngir congrès Macky Sall bi suba waaw directeur CROUS bu Thiès Moustapha Gueye ak maire Diourbel Malick Fall dañ doon xeex mardi tali mardi seeni militant day dama ne leen nit mënoon na cay dee ndax xeex ba na mun dee Cheikh Bara Dolly Mbacké day ci les si ko waaw nee gis nga réew mi balaa fee ministre de la justice kon di nekk ministre de la justice day dañ laa war a ñamal kaso <laughs> <laughs> walaay Mbàkke ba lay sa loolu yëpp jaru ko parce que lu fi waay atte di ko atte fa ñu jëm alay sa bi xamil hakimin te élection yi nag juróom-ñetti fukki fan ak juróom-ñaar ci des quatre-vingt-sept jours boo paree mën a tëjal